siiw waaw macha allah vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax ginnaaw bu ñu sant eh, eh, yàlla ñu sant suñu ay waajur euh, vraiment di remercier aussi sénégalais yëpp waaw tey moom vraiment nouvelle bi ñu doon xaar am na ñibbisi naa si jàmm ak salaam maa ngi ci kër gi. waaw euh, parce que xam nga defe naa boobu fekkee nga ko sax euh, mooy bi ñu waroon juge bi bi mu jëlee décision bi dafa waroon génnee bind bi nee na ci ñaari semaine donc ñaari semaine yooyu moo mat suba la lay mat sax ñaari semaine d'ailleurs donc dafa génnee décision bi rek vraiment macha allah ñu ta ñu répondre ko ñu daal di ma libérer si saa si awma sen pay sama waxu demb rek moy doon sama waxu euh sénégalais yag na dégg rew teranga la waye xamna ko tay ndax man sénégalais teral nañ ma ci côté yépp nak awma sen pay awma di len remercier di len gërëm di len sant di ñaan aussi euh xamna di ci profito wal rek pour ñu xamné aduna bi euh, li ñuy ñun toujours démocratie rek mo woor manam rew mu ne dañu wara am indépendance euh, de justice parce que bo xolé tay li am ni Amérique bu gënaloon nguuru Sénégal gi tey man maa ngi Sénégal di di ñoom ñu ngi may caxat caxatee waaye nag yàlla ba bàyyiwu leen ci seen sago te sénégalais yi aussi bàyyiwuñu leen ci donc bépp sénégalais ak fu mu mën a ne muy boroom kurus ak muy boroom ñaan muy sénégalais lambda bi muy sénégalais bi nga xam ne sax toog na ba xalaat Ousmane Tounkara sax ci xelam vraiment ñu ngi remercier ñëpp. Hallelujah. Oh,